téléspectateurs yi seetaan à travers Equivox TV ñuy am mbégte ak bànneex rek di jàkkaarloog yéen saa su nekk seen journal de l'arène ma ciy ànd ak nag ak euh, Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami. waaw balaa loolu rek dañ lay jaale sa ndaw bi nga xam ne moo fi jógee rek tey jii nii. waa muy muy lu metti sama benn frère bu ñuy wax Issa Sarr. Mhm. Issa Sène quoi mais Issa Sarr lañ ko gën a xamee nekkoon xale boo xam ne ñoo bokk dëkk ak yaay. ñu xëy ma na ne dafa génn àddina ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana mag bépp mbindaafoon bu mu fekk si biir bàmmela bu ko fekk rek barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon chauffeur ma koy jaale waa ak yaay yëpp daal vraiment ñu a baax mais balaa boobu rek ñu dem seetaan li nga xam ne moo di revue des titres daal di ñëwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 20 janvier 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la xëy doore ko yëglikaay bi nag tey fa mu xëy ñëwati ci combat royal bi war a dox mu xëy seqal waxtaan dalal ko mooy Max Mbargane directeur technique u ba nga xam ne moo di Lamsar père Max nag moom dafa xëy ñëw tey topp ñaari mbëri di leen décortiquer ci ay laaj yoo xam ne laaj nañ ko ko père Max nañ ko ci côté la nga xam ne nii moo di xeex jàpp na ni Modou Lo moom maanaam mbirum bagaar maanaam xeex daal lu moom mën a man la waaye Ama Baldé tamit père Max ne ko fi daan coow ci wàllum xeex muy Malick Niang ama da koo mu daanu maanaam da ko kawote côté mystique tamit Père Max na ne ñaari mbër lañ yoo xam ne ku ci nekk ci wàllum lamb moom lu jëm ci mystique doo ko foye doo ko caaxaane technique tamit jàpp na ni Modou Lo ku technique lool lool moom Père Max jàpp na ni Modou moom technique def na ko waaye nee na ama itam daa nekk mbër moo xam ne calculer ko moo jafe maanaam loo technique technique maanaam pour nga calculer ama ba rek dafa xaw a jafe lool côté staff tamit Max la mu gis daal jàpp na staff ba mu am baax na lool waaye Ama itam bu kenn fàtte ne moom famille ñoo ko dar maanaam dafa juddu ci famille làmb ba pare famille ba xëy dar ko di ko yóbbu ci làmb mel ni ki tamit ci côté force tamit jàpp na ne kii di Modou Lo maanaam force ba mu am maanaam doole biir la am boo ko gisee nii mën nga koo xeeb waaye bu ngeen jàppante di nga xam ne dëgg-dëgg doole yor na ko waaye jàpp na ne itam bu dee Ama Baldé la ci côté physique moom Père Max jàpp na ne la muy liggéey ak bu ñëwee na muy mel moo tax ba nga xam ne tamit noo mënte mel moom tamit doole boo ñëwee danga nga koy fekk ci ka nga xam ne moo di Ama am na keneen koo xam ne nii moom xëy na di wax muy ka nga xam ne moo di secrétaire Sipiter Diagne ma nga xam ne moom mooy directeur fa nga xam ne ni moo di DTV si Peter nag moom la mu xëy di wax waa làmb ji la xëy daal di waxal xamal na leen ne daal li am ba des mooy su ngeen bëggee dégg dëgg li nga xam ne ni moo di TNT bi mooy loo xam ne nii wala mooy système boo xam ne daal moom moo leer bu fiable boo xam ne daal fi mu nekk nii moom moo war a mën a taxaw aider la nga xam ne nii moom moo di lamb ji tey daal waxtaan wu yaatu moom secrétaire Diagne seq na koo yëglikaay bi nga xam ne nii moo di sunu lamb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu lamb keneen koo xam ne nii moom am na ku ñëw jàppale si ko maanaam aider ko muy mbay géey ma nga xam ne boobu ba tey ay weer a ngi mu tëddoon ci wàllum feebar la ko daaneloon nag di AVC mel ni ki nag Malick Gakou daal mu géejawaay dem na jàppale ji ko maanaam daal dimbali ji ko ci la nga xam xam ne moom moo di wér na ko leneen loo xam ne ni yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci muy ya nga xam ne ni lu toll a ngi yoo xam ne ni toog nañ ko kenn ci ñoom saxut ak soufflé dal di soufflé ab combat yëglikaay na tey moo xam si Tor Ndour la Babacar Diop ba ka Ngom ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi di sunu lamb dañuy dem buñ ca continuer rek mu ñuy xam ne tamit ci diggante ñaari mbër yoo xam ne war na noo bëre mu muy dox ci diggante fëgala bu Lansar ak ka nga xam ne moo di armée bu benn baraak yëglikaay bi nag ñëw na ci ñoom ak fa ñu mujje ku ci ne fa nga mujje neexul ndax ka nga xam ne moo di armée combat bu mujj caat bu booy bambara moo ko daan loolu mu ngi nekkoon le 15 juin 2019 fa nga xam ne moo doon ci arène nationale ba tey ci arène nationale booba ka war a dajel muy fëgala fa la ko double moteur bu rëbës daane woon le 7 juillet ba tey 2019 yëglikaay bi yamu ca ñëw na ci seen ay palmarès ne na ka nga xam ne nii moom moo di armée bu benn baraag 12 combats def na ko am lu toll ci 10 victoires ak 2 défaites bu dee fëgala la moom def na lu toll ci 17 victoires ak la nga xam ne nii moom moo di 11 défaites yëglikaay bi record wala boog sunu làmb moo xëy ñëw tey dina wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record record moom tey xamu xamu xëy topp moo di grideur mi nga xam ne daal jàpp na ne daal soo bëggee dégg dëgg moom ab taxawaayam daa mel ni taxawaayu tigre la ndax nag soo bëggee dégg dëgg yëglikaay mi na ay victoire am moo ëpp fuuf ay tam ndax lu toll ci juróom-ñetti victoire teg nañ na ko yoo xam ni daal da koo teglante benn defet la am te ko ku ko yóbbe mooy ka nga xam ne nii moo di ka nga xam ne moo di rëg-rëg mu caaro mel ni ki moom grideur daal fa mu tegub tànkam ah yëglikaay bi jàpp na ne est ce que nekkul fa nga xam ne mooy fu nooy fa wala fu baax fa keneen koo xam ne nii moom xëy na di wax muy layti seen ma nga xam ne nii moom mooy agent wu rëg-rëg ma daan giri de layti nag moom jàpp na ne wàllum wig la moom parce que su amee wala boog daa jàpp ne nekk na loo xam ne nii daal ci wàllum simple moom pour mu am dina ko jaaxal te est que sax mën naa am loolu mooy waxe ka nga xam ne nii moom moo di layti seen tey ci yëglikaay ba nga xam ne moo di record loolu moo nekkoon revue des titres ñu daal di ñëw yéen nag ci seen journal suñu làmb Babacar kii nga xam ne nag mooy per max mbergan daal di xëy ak ñun ci diggante Modou ak Ama Balde daal di ñëw nag ci seen côté mënin muy bagarre mystique technique staff ak force. waaw Père Max ñu koy nuyu di ko ziar moom defe naa tey ku xam làmba wala ngay wax ci làmb defe naa ne moom waroo ko ci mën a jiitu ndax lam ca def moo tax ak ñamu formé. ak tey ba tey mu nekk ci loolu macha allah ñu koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal képp ku mu mën a doon ah tey nag bu ñuy décortiquer combat bi parce que li mu wax ku ne war nga ci mën a bàyyi xel ndax bu dee bagaar la Modou Lo ku ne xam na ne bagaar moom mën na ko mbër mu mën a xeex la parce que ay combat yu bëri wane na ci xeex daan na combat bu mujj li koy li koy dëggal mooy combat bu mujj dafa dóor adversaire am mu daanu yaakaar naa ne nekk mbër boo xam ne bagaar de rii sax da ko gën a man xeexu bu ngeen jaxasoo xeex jaxasoo Modou mën na ko Modou mën na kor kon yaa ça veut dire que xeexkat piir la waaye ki muy jàkkaaroo tamit li Père Max wax am na dafa nekk koo xam ne nii gu ñu fàtte ne dafa kawate Malick Niang muy Ama Balde daf ko dóor mu wàcc mu bës ko kon ça veut dire que Ama itam am na lu mu denc ci xeex kon ñoom ñaari mbir yi côté xeex tamit ba tey rek da ngay gëm ne ku ci ne am na loo ci denc yaa ngi dégg bu dee mystique bi tamit lim ci wax ñoom ñaar defe naa ami ku leen xool xam ne ñu fonk mystique lañ ci wàllu làmb parce que dañ koy wane ci biir làmb buñ ci koy topp de A à Z te làmb ak loolu ñoo na du cent pour du mooy mi a làmb ji parce que li koy gagné mooy bi ak yooyu mais nag daf ci bokk ndax nit ñi dañ lay seetaan nga def yaramu neen kon yooyu dafay baax ngay muslu bu ñëwee tamit defe naa bi ci des mooy ci côté technique li mu wax mooy mu loo ko technique la waaw effectivement technicité Modou Lo tey moo ko indi bokk na ci li ko indi fii mu ne xam-xamu bëreem ak i tamit xam nu muy aborder ay combat ak adversaire am bëri ñenn ñoo këpp sut ko mais am na ci yoo xam ne génn na ci te loolu boo amul xam-xamu bëreem mënu calculer pour nga génn ci day xaw jafe mais Père Max ba ci ama ci côté technique bi ñu ko laaj leen ne ko calcul mm-hmm. maanaam bu xam da koy natt ama te loolu moo am parce que ama daan nañu jàpp ne ñoo këpp technique ñoo ko dàq bëre mais ba mu ñëwee daf leen a sëf lu ñu attanul daan leen kon li père Max wax ba tey foofu am la du koo xam ne nii ku ñu mën a calculer ci biir bëre ama balde parce que noonu lay doxee ndax li mu bëgg la xam yow xamul li nga mën ak li nga bëgg te loolu force la bi ci des mooy ci côté ba tey euh, staff yi waaw la wax ah, Modou itam staff bu baax moo ko indi fii ndax mënuñu la ne Modou ah ci liñ xam du papaay mbër wala yaayu mbër xëy dafa nekkoon xale nekk ci quartier Parcelles Assainies gis ay mbër di ko dund ba xëy nekk mbër kon ça veut dire que bu ko nekkee beeg am na encadrement ak staff bu baax bu topp ci ginnaawam ba tey côté boobu ama per Max la mu gis mooy moom it famille la amee effectivement moom dafa judd fekk ngembali ci kër gi parce que Fallaye sa papa papa Balde di sa mag yàlla na ko yàlla yërëm Sil Balde di sa mag Paate Balde di sa mag te ñu ñëpp ku ci nekk takk ngemb kon defe naa moom biir gétt gi te gétt gi nag ku ci bokk faw nga naan ci meew mi ami wala nga taq si neefare yi loolu la yàlla dogal amaa loolu moo ko dal waaw force tamit ñoom ñaar boo xool li ci Père Max wax am na Modou Lo force bi mu yor dafa nëbbutu maanaam moo gisee ci bindam da kii dafa tuuti bu ngeen ruufoo nag ah ami da nga xam ne laalante nga mbër pire wala borom doole ama itam mu jàpp ne waaw moom day day day. moom dëkk mu summeeku gis force bi parce que day liggéey. Mm-hmm. parce que Ama itam saa yu duggee ci lamb summeeku di nga xam ne kii summeeku. Mm-hmm. andi na doole ju bëree bëri muy combat boo xam ne daal yàlla nañ ko fekkee te tal ko ñu tëgg ko que le meilleur gagne. yow nga yaakaar ne keroog bu sifflet bi euh, jógee. Mm-hmm. ñoom ñaar kuy njëkk a attaqué parce que ñoom ñaar ñëpp fit la ñuy demee de. ñoom ñaar kuy njëkk a su ma ko su ma su ma si sama xalaat bu gàtt li ma sama xel jox man comme li nga ma laaj comme question naa ne baat bi ama moom li ma gis mooy sama gis-gisu bopp laay wax de moom xam naa ne moo njëkk dem ci kaw Modou Lo laa yaakaar waaw loolu moom bu amee du ma bett. ba tey rek ñuy desandi ci combat yooyu noonu kii di Jupiter Diagne di directeur télé bi di DTV daal di ñëw ci. TNT moom daal xam le ne TNT bi mooy système bi nga xam ne moo gën a euh, fiable ngir rek ñu tëgg combat bi. waaw maanaam ngir ñu ngir làmb ji. di Jupiter ah waaw loolu day gis-gisam la et tamit loolu moo lay wan ne kon tey ku ci ne ci Sénégal yaa ngi xalaat ay système yoo xam ne tey muy làmb ji muy football mu yeneen yëngu-yëngu yi war na ko mën a def ba nga xam ne nii ah dina am ay jarle ko ci ay xeeti xarala ki technique yoo xam ne ku ci jot di nga xool lu leer gis lu baax loolu nag li koy maye bokk na ci comme day jàpp na ne TNT bi war na mën a gérer làmb ji effectivement war na ko mën a def parce que am na lu mu ci jot a def kon yaakaar naa tey bu ko waxee li ci des nag mooy moom mook yi wala promoteur yi bu fekkente ni Sipiteer wax ñu ci xalaat wala ñu am luñ ci gis ñoom war nañ ko mën a dem jegeñ ko pour xool ñoom ñan nañ wala mën a nu ñu war a mën a collaborer ak moom ngir mën a tëgg seen ay lamb pour système boobu mu wax ne moom moo fiable pour lamb ñu gis ko voilà Babacar ñu toog fukki weer yoo xam ne sifflet jibul. mu mhm. mel ni ni nga namee micro bi rek ci Vox Arena. arbitre yi noonu lañ ko namee ñoom itam. <laughs> bien sûr waaw noonu lañ ko namee parce que xam nga ne ñoom Malick Ngom ñi li ngay gis ak ñoom Sitor ak ñoom Babacar Diop sama turando ku ne xam na ne bañ gëjee suuf léegi-léegi yàgg na kon defe naa tey euh, bu ñu gisoon fi mu nekk nii ni man ma namee micro ni ñu ko waxee pour reporter ñoom itam macha allah noonu lañ namee suuf mais nag ñaan yàlla rek xëy na léegi yàlla solution am bu bu ko defee ñu mën dajawaat sur le terrain ñoom ñu soufflé mbër yi bëri ñun ñu reporté <laughs> coow li jeex. <laughs> voilà bu ñu jógee foofu rek ñu dem ma seet ki nga xam ne moo di euh, père Mbaye Guèye moom nag mm. ginnaaw bi mu defee euh, AVCM boobu kii di Malick Gakou dem na rek seeti ko ngir saafuwanteeg moom xool nu mu ko jàppale waa loolu de dan naan alhamdulilah rek euh, wax Gakou tamit jërëjëf parce que li tax mu ñu war ko wax jërëjëf mooy moom Malick Gakou yaakaar naa ne ah nit la koo xam ne ni ci monde làmb tey mm-hmm. defe naa ne ñëpp dégg nañ ci te li ko waral mooy yàgg nekk ci làmb di jàppale monde làmb defe na tey bu ñu demee ba ku mel ni Mbaye Guèye di icône làmb tudd feebar bu ñuy wax AVC yàlla na ko yàlla yëkkati moom bépp mbindaafon bu wéré di Malick Gakou sol dàllam dem fas ko yéenee jàppale defe naa loolu moom dañ naan jërëjëf rek ndax euh, koo tanate dimbali woo ko ami yéen a yem damay faral di dégg sama waa ji Saliou di ko wax te itam nit ki day soxla ci bi muy dund mu nekk ci ay jafe-jafe jàppale ko kon defe naa gàkku loolu mu def lu ama am solo dañu ko ciy jërëjëfal bu baax a baax a baax waaw loolu mooy doole mhm. nit bu nekkee ci jafe-jafe mhm. baax nga di ko jàppale mhm. voilà bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci euh, mbër mi di armée ak fëgala combat boobu loo ci xam waaw li ma ci xam mooy ñoom ñaar comme ni ko yëglikaay wax ku ci ne fi nga jógee ci defet nga jógee ñaari mbër nag suñ jógee ci defe ñu joxaat leen combat am na lu leen war kon yaakaar naa tey ñoom ñaar ku ne combat bi nga jëm ñu nuyu la prince wala boog prince du moins prince Sissoko moom moo tëgg boobu combat muy combat ne yaakaar naa bu nar a neex la ki nga xam ne nag moom mooy fëgal mu ngi États-Unis armée mu ngi Sénégal xam naa daal ñoom ñaar ku perte combat bi dina metti trop trop ci yow parce bu dee fëgale la dugul bu réew sa ko mujjë daan armée caar bu booy bambara ko mujjë daan kon defe naa ñoom tey victoire ku ci ne obligé na la waaye nag sport la ñuy def il faut que buñ loolu mooy loi sport quoi. ñu ñëw ci mbër bi di Gris moom nag euh, ci euh, ci euh, ba mu dalee bëre ba léegi mu am huit victoire ak benn défaite mu mel nii rek mbër mu mag la de. waaw mu ngi ci yoonu nekk mbër mu mag de. waaw bien mu ngi ci yoon wi que loolu yombul que dugg ci làmb def huit combats teglante lépp ay victoire bëri na mbër yoo xam ne sax ay mbër yu mag lañ tey nekk ay VIP amuñu lool bi ñu commencé ay quelques combats bala ñoom huit huit victoire daan nañ leen wala bi ñu ñu daan leen moom nag kon loolu moo lay wan ne war na mën a ëllëg ñu xaar ko fu sori moom Gris 2 parce que la preuve benn defet la am comme ni nga ko waxee ci neuf combat yi mu jot digganteem ak rëg-rëg moo ko mujj daan muy na combat ak Abdou Diouf ça veut dire que loolu nag li koy indi mooy nit ki boo nekkee ci dara rek da koy bëgg jox ko cër boo ko bu ko defee déglu tamit nangoo déglu ndigal di ko jëfe te bàyyi tere man naam fi nga soxla nga dem fa nit daal lu mu mën a doon si addina moo xam mbër maag yow ameek man Babacar xullemee di film ñun ñëpp ku ci ne da ngay nga faral am écoute di déglu itam di nangoo jëfe waaw li baaxul nag suñ la ko waxee itam nga moral ko mu jàll nga xam noo koy doxale daal waaw loolu ci teggi nag orma la bokk da nga koy ma yow boo déglul critique nooy avancé ñun ko deful du sot ko deful sax du sot faw ñu lay critiquer ami mooy tax nga avancé <laughs> voilà après buñ jógee foofu rek ñu dem ci ki nga xam ne moo di Leyti Sène di agent de Reug Reug mhm. moom nag mu daal di ñëw ñu nekk ci combat huis clos yi moom daal gis na ne c'est impossible pour simple bi waaw mënta nekk waaw ci lambi simple ji Leyti Sène ñu koy nuyu di ko ziar moom defe naa ne itam ah lamb simple moom xam naa ne yaa ngi dégg parce que li tax mooy lambi simple ni muy demee la euh, mbër yi boo leen bëggee testé mbër yi fay ñëw exemple tey nga teg benn 2 millions cent litres war a bindu ñu war leen a testé loolu affaire la sans compter ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii defe daal wax ak public ba nga xam moom lañ ci tàmmoon mais nag xëy na solo doxalin yi ak fi ñu jëm bu ñu ba si kanam lu ci war a mën a am dinañ ko gis mais am na dem na mbir la moo xam ne daal dina doy waar daal. dina doy waar <laughs> voilà Babacar ah. mel ni yegg si nañ ci càppaandaw gi tey moom yegg si nañ ci càppaandaw gi. balaa may quitté nag dama lay laajte noir bi pour lan la ma def noir Babacar nga def noir. waaw parce que ci boppam non waaw yow xam nga dafa am dafa am lu Cheikh Bass wax démb seex Bass dana ma looy xaar cami mi naa la jël léegi nag tombé mooy waral ay gaaf. Cheikh Bass. Hmm. Cheikh moo wax loolu hélas moo ko <laughs> moo tax nag tey bi nga bi nga solee noir ma gis la ci génte rek. xol day gis xol day xëy sol noir kon Cheikh Bass yow laay xaar léegi nag li ma lay sas mooy utal ma benn oo bu rafet ak benn tubéy bu rafet nga joxal ma ko ami mu nekk premier cadeau boo xam ne nii maa ko koy jox mu jóge si si moom quoi. <laughs> ñeme nga daal. ñeme lan. attaque nga am. non loolu waxatuñ ko. Ah, séréer la bawal bawal la. <laughs> waa di sant yàlla rek di ñaanalaat sama rakk jooju génn àddina muy Issa yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana di ko jàll waa ak yaay yëpp yëpp. waa Daadak parce que yaayam waa Daadak la te Daadak fa la sama jabar jóge di ko jaal képp koo xam ne daal yaa ngi ci commune Ndondol àddina mm-hmm. moo mel ni kul nafsin saay xatin mawtin la yàlla suñu borom bi wax mm-hmm. loolu du ma sa dañ ku ñam jundu da nga ñam dee lu tooy da nga ma wow ah yàlla na fekk rek bu ñëwee rek mu ànd ak njégalal suñu borom ak yërmandeem parce que loolu rek moo fi ne ñi dem ñàkkuñu fulla ñi fi des fayda bàyyiwu leen fi mm-hmm. amee di la jaajëfal di nekkoon ci wàllum technique bi ak hélas mi ci montage bi jaajëf waaye le PDC de Equivox Group mhm. nar na ko maanaam bu fekkente ne tey làmb ji tijji na wala boog bu tijjiwul ba dem ba gars yi ne kat fii ñu fi dëgg làmb Sénégal mhm. moom moom ci ay gis-gisam wala la mu yéene mooy mhm. fas yéene nag dem fa nga xam ne moo di gàmbi pour tëggi fa làmb yi nga xam ne tëgg na ko muy tournoi bi ñuy wax G5 bi ñoom Maama Lamine ñoom Franc ñoom Tyson 2 ñoom Garga 2 ak combat yi ca aju. loolu du sa yomb. te su boobaa xam naa da nga may yóbbaale ndax déet yow fu may dem fi mu ne ñooy ànd. <laughs> voilà kon nag ñu leen jaajëfal chers téléspectateurs di leen jox dig daje rek ba ëllëg incha allah.